asalaamaaleykum ñii nga xamante ne ñoom laa fekk ci monument bi ak ñi ma fi fekkul di leen ñaanal rekk yàlla yokk seen jàmm di leen yëgal ne séeréer bii li ñu tey léegi léegi tukkil na àdduna del def nànk say galan may ñaan sama mbokki joolaa yi sama mbokki joolaa ana borom biib gi mbiibal tuuti ma déglu xool ba xam la moo saf ana borom mbiib gi bon. dafa génn. dina ah bon mu ngi ñëw. gaaw lu ñëw mbiib ma xam. Euh, mbokk yi mag ñi dañu wax ne dul jàmma jàmma ka gën yéen ñii organiser lii si kàddug maire Abdou Aziz Gueye ñii nga xamante ne mooy maire Wakam yàlla si boppam borom dimbal la lii nii xaw ma ku ko xalaat waaye bu mu ko indilee waa ji wax na léegi ne mënoon naa bañ Babacar a ko wax a ka fi wax de waa góor waaye te dëgg la sirif am nga jaaraam boo naqari woon a dëkkal coow am nun ñii ñoo bokk ay maam mag ñi dañ wax ne lébu séeréer joolaat tukulóor ñoo bokki maam ngoon buñ ko yàq yàq baaxul ku yàq sa minaanam suba bu seddee dina garaaw Abdoul def nga lu rëy tey si ndax lan temps yëpp gars yi dañ crispé kenn yënguwul boo bëggee dem sax say mbagga du dem boo koy bëggee fecce sax doo mën a fecce ndax dëkk bari ci Sénégal faa aw la gis la baas faa aw baas yaa ngi la tiim nu nga naan kii tey gii lanu ñam baa sab gumbe ahbaasab ndaw rabbin ahbaasab euh, loogu euh, euh, joolaa yi def ak séeréer si léegi léegi guni man sama affaire maa koy kal si Sénégal dafa am or am zircon am na comme tout ça ah pétrole ak gaz ak ah, kasa mbokk jërëjëf waay war naa dëgg <laughs> may wax ne nun wakaam amagunu si programme boobu yàlla ba nu si am ñii si jot am si dëkk yi yàlla na ko yàlla arrêté foogu mu jeex waaye nag dinaa leen xamal ne ñii dem ba seen bakkan rot si actuellement perdi mu neex mu naqari fii mu toll nii pétrole bii la ñëw te gaa yi yaakaar si ba nu ñëwee seenum cër nu nii noo ka baaw na leer kasi demba demee nu reer sa ginnaaw guni paase nanu fan leen a dialogué naan ay waaw xam nga géej gi dafa am ay mala mala dafa am li géej gi amul dara temps la géej temps la nuy bàyyi den si daan dugg la génn mais dañ kaa naan wér si temps ak technique jóge fii dem ba xama protéine leen ba xama fan Espagne fekkat xëy na fo pontu mi nan ko wàcca wàcca ka moo la bañ a dégg ci gaal nit defar gaalam ñëw ne la cinq mille cinq cent mille cinq cent mille yoogu see dugal baa ka jënde woon juróom fukki ginaar u jaay ka wala u toggalu ko sax toog ci mbedd mi baa ka jaay amay koppar nan wàcca géej géej lañ wax ne lii si nekk kenn mënu ko xam man mi jaraaf Youssou Ndoye da bés nu demoon sedd fii si ginnaaw xeer yi moo li bakaa mi xam nañ si daal Papa Ndoye fàttee eh, jënd ki eh, eh, gén indiwaale bi heureusement maam ñaa ngi daal di juum jëndaat beneen essence heure bii maa nga place Porote la jal jalaan fooga parce que dañu dem ba ci kanam amatunu ab serukaay te xamatunu fi noo jaar parce que wëndaalu géej boo wëndaalu rek fàtte fii fii yabe bi nekk sooy départ fii si poteau lampe yi nekk fii si nga daan wéeru boobu pour xam fii ngay ser pour mën a jàppi génn ma géej boo ko moomu rek bàyyi ñu bàyyi foofu léegi fi mu nekk nii nu yokk walang bi parce que Wakaam dolloo na ga euh, euh, jàmm jaa xamante ni da ngay waar Abdou Aziz lii bu fii gëj boo fii gëjee du baax parce que man fi ma toog nii tàng na ma fi ba ba tax maa nga transpirer <laughs> euh, c'est normal parce que nu aada laa laal aada giw laal nag oh ak <laughs> yaa ko tey jii kontaan nañu yal na yàlla kontaan si yow yal na nga dundal ëpp cent quarante quatre mii dara teewul yal na la yàlla may jàmm ju matale matale matale comme nii ko maam Serigne Abdou daan waxe ñii fi toog kenn ku si nekk yal na la yàlla may lu ëpp cent quarante quatre ans ba nu da euh, euh, jëw si euh, journaux yi naan diw de dafa gudd fan <laughs> ay diw fa mu jëlee fan wi yàllaa ka ka may mu jeex gars yi bonne nuit ok jërëjëf le grand jaraaf kaddu yi rafet na